الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على سيدنا محمد المنزل عليه القرآن وعلى آله وأصحابه الحاملين للقرآن ومن تبع هداهم إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi nekkoon ci tafsiru suratul fatiha mi nga xam ne mooy umul kitaab mooy alchaafiya mooy alwaafiya mooy alkaafiya mooy annaafia fa tabaarakallahu ñu agsi ci parti bi nga xam ne yàlla ci boppam moo ko boppam nga xam ne mooy rabbil alamin mooy borom mbindeef yépp ñu la waxee fatiha kon mu gën ci alquran neex naa gëm ndax li nga dégg moom mooy rabbil alamin mooy maliku al alamin alamin nag lépp lu dul yàlla ci nga bokk mooy rahman mooy rahman nga xam ne mooy wasnu faalan yushiru lil imtila mooy dafa fees del ak yërmande mooy rahim bi wasnin xaas bii di am bii di xaas moo tax ñu ne rahim mënul émerger fii ci àdduna parce que bu boobaa tabarakallahu dafa am ñeneen ñoo xam ne bokkuñu ci mu ne nag maliki yawmi diin wala maliki yawmi diin moom moom bés penc wala mooy buuru bés penc yàlla lépp lu mu wootee possession di nga gis ku ko xëccoog moom ba mu des bés penc nag am na sax ñu commencé di fa diggee foofu bés penc naan boo leen fa ñëwee di ngeen am lii boo leen fa ñëwee di am lii loolu yàgg naa am depuis ci yéefar waaye tey teyoon ci baax na teyoon ci baax na parce que bés boo xam ne tabaarakallahu grandeur yàlla ca lay feeñ nga revendiquer fa lu ne boo fa demee ñu lay wër ngay nëbbatu kooku dara jaru léegi loolu mooy benn partie bi nga xam ne mooy fatiha yàlla nag indiwaat beneen mu ngi mu mel ni yow miy déglu rag ragal loo na la mais yaakaar loo na la mais ki mel melokaan yu mel nii mate nii est-ce que mérité wul ñu jaamu ko ah ah ndax yàlla moo wax ne wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yacbuduuni maa uridu minhum min risqin wa ma uridu an yutcimuun képp koo gis mu moom dara mu ngi xaar pour jariñoo loolu ba ci ki amee ay verre verre myope xam nga moo ko moom moo ko jënd mais daf ko bëgg jariñoo pour mu leeral ay bëtam ki jënd yërem kooku da ko bëgg sol pour mu suturaal ko ba ci peñe bi nga jënd da nga ko bëgg a peñewoo ki jënd ay dàll daf ko bëgg a nangam moom moo ko moom mais daf ko bëgg a jariñoo yàlla nee na bu leen juum maa moom nit ak jinne mais bëgg koo jariñoo taxul dama ko moom moomuk not ko rek maa uridu minhum min riskin bëgguma ci moom wërsëg buñ may offrir wa maa uridu an yut'imun bëgguma ñu lele ma parce que man duma lekk ndax inna allah huwa razaqu dul quwwatil matin kon yàlla moomu comme mérité a jaamu te moom moo tax mu bind kontu kuntu kanzan maxfiyan lam uraf fa ahbabtu an uraf fa xalaqtu fa xalaqtu xalqan fa taaraftu bihim fa bii arafuni yàlla nee na maa fi nekkoon rek wét doon rahman te gisuma ku ma jox xéewal doon rahim te gisuma ku ma jox doon almalik te gisuma ku ma ku ma ku ma administré fa xalaqtu xalqan après nag ma bind mbindeef fa taaraftu ilayhim ma xamlu ci ñoom maanaam pour ñu xam ma fa bii ci loolu nag arafuuni ci lañ ma xame maanaam ci man lañ ma xame ci ngay xamee ne képp ku xam yàlla ñu naan arif billah yàlla ci boppam moo la xamal boppam waaye itam wës na fa bii muy quatre-vingt-douze ci ngay xamee itam xaqiqatul muhammadiya ne ku xam yàlla foofu lañ la piqûre yàlla na nag ba ma bindee bindeef dara taxul woon lu dul ñu jaamu kon yow mii nga xam ne yaay jàng fatiha yow nag léegi yaa ci des seen reconnaissance nga def iltifaat nag ndax boobu yàlla bi muy wax boobu ba tey bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil troisième personne euh, singulier la woon troisième personne singulier kan mooy yàlla nga ne rahmaan la de moom kan mooy yàlla rahim la de moom kan mooy yàlla malik la de moom léegi tey dafa def iltifaat min al ghaybi ila al muxaataba ndax ki nga janoon naan kaan yow mii yow mii janoo wook moom te pourta moom la doon wax moom il sans cesse léegi nag mu naan kaan yow tu kooku dafa def iltifaat mais ñu ne waaw parce que xijaab yi dox ci diggante jaam bi ak boroomam dagg na ndax la fet que yëg yëg nga ne moom mooy allah moom mooy rahman moom mooy rahim mooy rabb moom mooy malik léegi nag yàlla bég na ci yow ba rido yi doxoon sa digganteek moom daf ko dindi benn yoon rek ngay janoog moom kon nga gis ne zikr dafay dagg ay xijaab nga ne ko iyaaka yow laa wax yow mii ma janoon yàlla naabudu la ñuy jaamu mais waxoo iyaaka yow yàlla abudu laay jaamu yow waxoo ne yow yaay jaamu te yow mi jàng fatiha yaay jàng fatiha mais naabudu nga wax nuunu jamaa nga utiliser nous les croyants nous les musulmans on t'adore léegi léegi yow yàlla mi nga xam ne danga wax ne ñun ci lañuy xamee ne yàlla kon kenn du ko jaamu individuellement gis nga jaamu yi ëpp solo yëpp ba ci ponku lislaam kenn du ko def individuellement yàlla dafa wax ne war warka'u maa raakiin dem leen ci jàkk ja ngeen julli ji war ruka'i sujud yàlla toujours buy wax dem leen jàkk suba gi mbooloo moo fay ne tisbaar mbooloo moo fay ne tàkkusaan timis géewe lépp lu ñuy def ci xeetu julli ba ci weeru koor gis nga boo koy def naafila am euh, en public lañ koy def lu dul quelques individus yi beru di julli loolu benn la mooy collectif mais même bu dul loolu tisbaar bu jotee deux mille milliards maanaam deux milliards yi dund ci àdduna bi ci ay jullit presque kan moo ci dul julli tisbaar kon foofu la collectivité bi dellu doon kenn ku ne individuellement nga julli mais ñoom ñëpp bu ñu boolee seeni tisbaar kon an collectif lañ ko jullee mm-hmm. moo tax naabudu yow yàlla yow la ñuy jaamu ci julli la tisbaar gii bu ñu demee gis nga makkatal mukarrama mas ngaa dégg a ne man rek maa dem aj man man rek maa dem aj ñibbisawaat ak sama kaala ah aj gi collectivement lañ koy defee kon na'budu yow la ñuy jaamu ci aj gi weeru koor bu jotee ndax yow rek yaay woor adduna bi yëpp ñooy woor ñu def ko en guise d'adoration de Dieu kon ñun ñëpp na'budu Euh, booy génn azaka du yow rek ay génn azaka ñëpp ay génn azaka wala bu saraxe jotee ñëpp ay saraxe kon yow naabudu la ñuy jaamu waa comme yàlla na dafa def pluriel adoration ne moom lañu war a jaamu est-ce que jaadu na yow jullit yooyu nga war a àndandool pour jaamu yàlla ngay dogoog ñoom après ah munul nekk mu ngi mel ni ci julee ci jàkk ji Euh, iyaaka naabudu wa iyaaka nastain ak bu muy sëlmal ne assalaamu alayna wa ala ibadillahi saalihin bi mu sëlmalee nag ba pare gis mbokkum jullitam nii mu dem ba koy nuyu ne non kii moom neexaw ma ak moom kii moom sëquñu lu ñu do doo dégg léeg-léeg nga ankaan diw gëjoo ko gis mu ne non diw temps yi nuyo amul léegi naabudu bi nga wax moom mu wax ko fan la tegu loolu amal gam la moo tax iyaaka naabudu nitu yàlla di wax ne du revendication déedéet iyaaka yow yàlla naabudu déedéet ordonnance la danga ko war a def iyaaka yow yàlla naabudu yow la ñuy jaamu moo tax du du revendication mais dimension la moo tax nitu yàlla bi dafa taxaw kàbbar jàng fatiha ba ci iyaaka naabudu ñu nekk këdëbta yaa mën a wax lu dul dëgg mu taxaw ndax revendication la def yàlla yow la ñuy jaamu ñu ne ko waxoo dëgg mu dégg haatif bi mu ne ko lan la mu ne ko bal taabudu zawjatak yow sa jabar ngay jaamu xam nga am na ñoo xam ne seen jabar rek lañu ragal hmm. bu ndaw si fasee kanamam sax àddunaam tukki hmm. kooku kan lay jaamu jaamu mooy koy adoré koo xam ne daal ci waawam nga waawam ngay xëy ci ngay gont te bari na ñoo xam ne seen sëriñ la ñuy jaamu xamoo hmm. ne duñ la ko wax te seen seen sëriñ ndax ki ngay jaamu mooy ki gën foor ci sa xol ki gën a foor ci sa xool rek te kooku yàlla la war a doon kon keneen kooku fa dugal ku dul yàlla rek maanaam yow kooku ngay jaamu doon waxoo ko mm-hmm. waaye na ki gën a fort ci xolam mooy jabar ji tam naa dina ci bari morom mm-hmm. euh, nekk sa soxna ngay jaamu mu sëlmal ndax foo yeggalee tey julli gi dafa sëlmal dem ci soxna si nekk daal dafa am lu ma la bëggoon gënal ma sax mais daal bés ni tey wàcc naa bu mu tax nag kenn def loolu déedéet wàcc naa la lan mu ne ah, mu nekk noo wàcc naa la maanaam pour xeex xolam xam naa nangu ko sax mu ngi jooy mu ngi jooy waaye la daloon waa ji wax dëgg yàlla soxnaam moo dàq ci dëkk bi mu bëgg ko lool ndaw si dem nag ba yëg boppam xëy rek ne ko daal nijaay may ma sama baat euh, euh, bëgg nga ma mu ne ko waaw mu ne ko bu ma la lu ma la ñaan di ma ko may mu ne ko waaw yow kay yow yaa ma gënal lu ne mu ne ko waatal ne lu ma la ñaan di di ma may mu ne ko mu waat waat yi mu am yëpp mu ka li ma lay ñaan mooy nga may ma sama baat mu ne ko ëpp naa wax li nga wax ëpp na mu ne ko déet may nga ma ko ba pare parce que waat nga ne kii de mu ne ko ah, góor du wax génn ji léegi nag moom waa ji ñàkk pexe ba mu jege moo doon dajaleel ndaw si ay bagage am di ko dajaleel di ko dajaleel ba kii ba mu paree nag di génne ba ndaw si wan ko gannaaw moo mu koy xool ba yàgg di yëngal bopp bi rek naan kan ay waay ndaw gaaw a jar ndaw gaaw a jar. Mm. yow doo seme na yoon. Mm. te moo koy bagage yi kat rek. Mm. kan ah yaa ngi dem de waaye. oh ndaw gaaw a jar. man kay ki nar a yemaat ci yow rek laa ñëwee. xam nga kooku wax dëgg yàlla cofeel gi jeexul. góor gi looloo ko dal. naabu taabu zawjataka mu ne day fase jabar ji fekk taxul mu kii ko waaye pexe amu ci. ba ndaw si dem ne a ah, man de jote wuñ dara moom daal demal rek. dem. góor gi jàppale lépp pare na mu taxaw di julli bi mu àggaatee foofu dimension la ñu nekk déet bal taabudu euh, wala dak sa doom sa doom ngay jaamu parce que ndaw si bi fi bi mu demee bàyyi na fi xale yi hmm. mu war doon seen yaay war a doon seen bàyyi mu jël xale yi koli koliye leen yóbbu leen euh, yaay ji toogaat ñu nekk bal taabudu maalak sa sa alal ngay jaam jaam jaamu mu jël li ci compte beeg kër yeeg yëpp saraxe ko ma xaal boobu metti na de hmm. waaye borom cër yi noonu lañ leen di nattoo bi mu demee nag ba deseetul dara léegi nag benn bés mu kàbbar ne allahu akbar ne iyyaka na'budu haatif bi nekk al aan al aan léegi nag léegi nag yàlla ngay jaamu xam nga dimension bi sori na torop kon ñun comme kenn waxul ak ñun ñun sant nañ yàlla ndax buñ doon dégg loolu adduna tukki mais dañ dañ bëgg a wax ne rek du revendication bul ne man yàlla laay jaamu dañ la wax ne moom nga war a jaamu léegi nag mu des est-ce que dafa ne naabudu ko yow yàlla yow la ñuy jaamu te loolu lay firi iyaaka naabudu bokkul ak naabudu ko bokkul de naabudu ko mooy yow la ñuy jaamu mais kaaf googu yumkinu li tërti bi après mën nga ka hiérarchiser boo yàlla yow laay jaamu après ak diw xam nga un boo gis lan lay xaar ah deux deux boo gis trois lay xaar bu ko defee mu doon ma jara du yem fenn waaye uniquement boo nee uniquement man est-ce que mën na nangu beneen loo tax ngay wax unicité de Dieu yàlla c'est unique maanaam moom maanaam loo xam ne lenn rek la xam nga benn ak lenn du benn moo tax nga ne iyaaka yow yàlla dong dong dong dong taqdimul mamul alal fi'li loolu lay jariñ iyaaka yow dong dong dong dong naabudu la ñuy jaamu ñun jullit yi waaw loolu boo ko boo ko revendiqué te nekkul ci yow est-ce que wax wax nga dëgg déedéet moo iyaaka yow yàlla dong dong kon la euh, la communauté musulmane yàlla dong dong lañ war a jaamu comme yàlla kon kenn ku keneen ku fi bëgg a indi keneen par entre guillemets ne kooku naan sufaa una ñoom ñooy dox suñuy médiation suñu digganteeg suñu borom comme ni koy yëfar yi doon defee yàlla nee na nanguma parce que ki nga bëgg a def sa médiation sa digganteeg sa borom kaña nga ko xam bi nga juddoo ba majeur ba xàmmee hmm. mais yow bi ngay nekk fœtus est-ce que xamoon nga kooku nga bëgg a def médiation moo tax iyyaaka na'budu léegi lan mooy ibaada ibaada mu ngi firi d'ailleurs mooy mooy mooy li tax ñu bind ñu wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ibaada dafa am li ñuy tudd qawliya maanaam ay wax am na ay parole yoo xam ne loolu jaamu yàlla lay tudd am na yoo xam ne fi'liya la ay jëf ay acte yoo xam danga koy def mu doon jaamu yàlla am na yoo xam ne xaaliya la melokaan yooyu comporté woo mu doon jaamu yàlla bi nga xam ne qawliya la mooy nit ku ne bu majeure war na waxal boppam ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammad rasulullah loolu mooy ibaada bu jëkk bi parce que mënoo doon jullit ca waxoo loolu moom mooy bu njëkk bi am ci yoo xam ne ni boobu mooy wax bi moom faw nga wax ko ashhadu maanaam doon na rek gëm naa ko sama xol lool koy jarul sax ma koy feeñal déedéet faw nga wax ko seede ashhadu publiquement an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah moo doon nga gis ba tey kuy def conférence ci buy tàmbali temam ne wa ashhadu an laa ilaha parce que da ngay renouveler rek yonent bi nee na du imaanakum bi qawli laa ilaha illa allah dee leen yeesalaat seen ngëm-ngëm toujours ci wax mais du pas-pas rek euh, ngeeni wax laa ilaha illa am na ci iba loolu ibaada la ci wàllu wax ibaada yi nga xam ne ci wàllu wax la dellu mu ngi mel ni alquran jàng alquran kenn du ko xum-xumee jàng alquran ak jàngale alquran ay wax la ñu mel ni tafsir bi ñuy def ak yu mel noonu yooyu yu ñuy wax la ñu mel ni tasbix wuzkur rabbaka tadarruan wa xufiyatan zikr yi ngay def wax la et cetera et yooyu jaamu yàlla wax la bari na ci lislaam am na ci jaamu yàlla goo xam ne fiiliya la jëf xam nga kenn mënu la wax a wax ba julli hmm? julli kon danga koy def ay jëf la hmm. dangay rukkoo di sujoot di nangam di nangam ba ku la sori xam ne kii dafay jaamu yàlla. am na euh, am na jaamu yàlla yoo xam ne looy bàyyi la. bàyyi nangam. ñu ngi mel ni njaaloo lu ñuy bàyyi la. nan sàngara lu ñuy bàyyi la ay turuk la mais jaamu la ci boppam. mais ñu bari xàmmeewu ñu ne weeru koor maanaam koor ci boppam jaamu yàlla gooy bàyyi la. koor maanaam koor ci boppam. koor jaamu yàlla goo xam ne ci turuk yi la bàyyi mooy adamul akli wa shurbi wal jima mooy dangay ngay bañ a lekk bañ a naan bañ a sëy ba timis loolu mooy jaamu xam nga bu wute nag julli julli moom looy def la bee nag looy bàyyi la mm-hmm. looloo tax boo gisoon ku xëy soo ba ngoon lekkul naanul jaful bànneex te taxul woon mu yéene ci koor du tudda koor te pourtant koor gi ak lële ñoo yam mais bokkul parce que kii def ko yéenee jaamu yàlla ci bàyyi gi mm-hmm. kële nag dafa bàyyi lële parce que xam naa dafa amul pexe. Hmm. li ma waaj doon wax ne man du ma ndékki. ma ne ko ku dul ndékki ak ku amul lu mu ndékkee du benn. Hmm. mu ree ndax xamante nañ. Hmm. moom dafa dul am lu mu ndékkee. gaañu na yàlla na yàlla yokk leeram. da dul am lu mu ndékkee te kër gi añ la ñuy togg. mu faf bàyyi ndékki bu añ jotee mu añ. kon nag bu tooy man naa man du ma ndékki ma ne ko non gi da Mm. amul ndekki mm. loolu nag mooy différence su koor ak lu dul koor. Mm. la maanaam yoo bàyyi la mais ci jaamu yàlla la dellu. koor itam jaamu yàlla la joxe azaka moom alal maanaam joxe la moom jaamu yàlla joo xam ne lu ñuy joxe la looy génne. Euh, xuz min amwaarihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim et cetera kon jaamu yàlla jifi yi yooyu la mooy yoo xam ne yooyu def la ak yooyu bàyyi ak jaamu yàlla yoo xam ne nag xaal la. muy bon comportement yi jullit ji mar a mel euh, amee melokaan bu rafet di sol lu baax di nangam euh, te sa làmmiñ doo ci wax lu kii ak yoo xam ne damir la maanaam ci sa xol muy nga dindi kiñaan sa xol jaamu yàlla la dindi mbañel ci sa xol dindi siis ci sa xol dindi yu mel noonu ak bañ julit ak yooyu nga xam ne ci xol daal lay dëkk te koo ko waxul mën na ko bañ a xam mais yàlla mu ngi jano xol bi bari na ko la akolaat naan yow rek laa bëgg te xol baa ngay bax hmm. maanaam moom xol bi mu ngi bax dafay xam dafa xamul dafay agencé ak xolam rek ba bañ a feeñal li mu gëm mais mu ngi dee moom te ba xam nga yàgg foofu hmm. boo fa yàggee day day ñaxatooy xep nga yaakaar même da nga ñax te pourtant tàngul fekk yow bi mu gis hmm. addunaam tukki na te waxu la muy semblant nag yow rek laa bëgg fekk boo fa yàggee tuuti leneen feeñ. loolu mooy xeetu jaamu yàlla bàkkaar yi nga xam ne ñoo nekk biir xol bi loolu da koy dindi. yooyu yëpp dafa dellu ci cadre iyaaka naabudu kon bari na kuy def revendication iyaaka naabudu te vraiment bu ñu xooloon sa zahir xool sa baatin xool say wax xool say acte ak say fee vraiment dinañ xam ne aptuwoo pour wax iyaaka naabudu léeg-léeg nga gis kenn mu nekk ci lu ko neex moom. bu ñu ko dénoncé mu naan non non bàyyi leen li ngeen di def jullit day màndu yàlla xol yi lay xool. loolu yow da nga yab nit ñi. yàlla xool yi rek lay xool. waa léegi léegi ak yi nag. ah waaw màndu leen parce que euh, attew leen kenn déedéet. gis nga képp ku exposé ci kanamu nit ñi lu bon li nga nekkee c'est-à-dire dafa war ci jullit yi ñu dénoncé la yow. ndax loolu mooy alquran nee naa la amru la ak nahyu hmm. te ñàkk a dénoncé jullit yi loolu ñoom it da di jural beneen bàkkaar hmm. moo tax kii def bàkkaar di ko def publiquement ba pare ne bu ko kenn dénoncé parce que nit day mandu na teel la meñam ci lu yoonam nekkul mais li c'est yoonu ñëpp ci ne parce que yaa ko exposé ki tëju ci biir néegam def li mu bëgg a def kooku kenn du ko dénoncé hmm. mais yow mi ñëw na ci public bi def li la neex di du wax loola la neex masalan ku naan ba mandi daanu ci medd bi exposé woo sa bopp. léegi buñ ci waxee nga ne non jullit dafa war a màndu ci lu yoonam nekkul. loolu nag yoonu ñëpp a ngi ci. Hmm. moo tax euh, ibaada boobu am na ay façon léegi nag ibaadatu ku ne xam na ne am na maqaamu islam. Hmm. ibaadatul islam mooy cadre bi nga xam ne mooy cinq piliers yi. Hmm. ibaadatul iman dafa dellu ci xol. nga xam ne lépp looy def da nga koy amee ak croissance boo xam ne. ak croyance bu extraordinaire nga xam ne li ngay nëbb ci jëf yu baax mooy ëpp li ngay feeñal maqaamu ibaada bu mujj bi nag mooy maqaamul ixsaan te mooy an taabudallaha ka annaka taraah fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak mooy nga seey ci yàlla seey ci yàlla ba yow maanaam dangay am connectivité ak yàlla directement hmm. te loolu moom la yàlla mayoon yonent yi naturellement may ko ak naturellement ak euh, awliya yi nga xam ne sonn nañu ba am maqaam boobu kon maqaamu ibaada euh, ki euh, niveau boo ci toll ki nekk ci maqaamu islam bu ne iyyaka na'budu adaa'ul faraa'idi fa fal fa lay dellu ki ne ki ne iyyaka na'budu ci maqaamul iman al adab fa lay dellu hmm. al bawatin ki nekk nag ci maqaamu iyaaka naabudu ci maqaamu ixsan kooku mooy an yacbud allaha ka annahu yara ba mu jeex yàlla ñu ko yàlla may niveau bu kawe bi waa waxaat ne wa iyaaka nastain wala bokk yàlla waxaat ne wa iyaaka yow dong nastainu la ñuy jaam foofu nag ñu bari fa la ñuy daanoo gis nga taqdim bi mu defaat waxul ne nastainu ko yow la dimbali ko iyaaka yow dong dong dong taqdim bi xasr yow dong dong la du ma sàmba du ma demba nastainu yow lañuy ñuy sàkkoo ndimbal hmm. waa mais ki wax loolu sëlmal dem bureau bu ne mu jàdd fa gis directeur ba nekk boo ci jàppul mu ñaw li nga wax dëgg la ah? hmm. moo tax imaamul Baydaawi mu ngi amee tafsir boo xam maa ngi ko amee lu mat euh, fukki xaaj ak dara la tafsirul Baydaawi dafa def tafsir bi ba pare euh, mu rëy lool ci jamono jooju xam naa mu soxla woon ku ko implémenté ak yu mel noonu. soxla daal ay moyens. ñu ne ko pourtant de amir sàngam gouverneur tel dafay faral di toppatoo yi euh, wala buur tel moom bés bu gisoon téere bu mel nii non seulement dina ko éditer imprimer ko waaye yow dina la jox alal joo xam ne fa ngay jaare moom tekki ba faw hmm. ngi mel ni li musiciens yi di def ba tey jekki-jekki génn benn son way ci ku ku siiw ku am alal hmm. pour mu jox la dara Mm. loolu daan na xew ci monde islamique ci jamono yooyu. Mm. nekkete loolu xikma yàlla la parce que bari téere yuñ taalif ci cadre boobu. Mm. tey ñu koy jariñoo te pourtant borof borom ba mu koy taali taalif la ko la ko la ko la ko occupé woon yëpp ak la mu la mu ci doon xaar. mooy mu dem jox ko buur bi pour mu jox ko alal ju bari. foofu buur yooyu dee nañ te ñun ñu téere ñu ngi fi des ba tey ñu koy jariñoo. imam Baydaawi nag jël téere bi tabaarakallaahu laxas def ko ci gëléemam di dem jóge ci Sham defe naa jëm Faris wala Turki hmm. bi mu demee ba ci digg màndin bi mu dajeeg benn nitu yàlla mu nuyonteeg moom jàmm santeeg moom ne ko yow la kan mu ne man maay albaydaw yi waxa waxa waxa mu ne ko lan la woon mu ne ko dama dégg buur sàngam ma dégg ne moom dafay faral di Euh, bëggee ay téere yuñ taalif ci lislaam te da ciy joxe ay millions yu bari ma de ma defoon nag tafsiru quran bu yéeme yéeme yéeme ba daal falaa jëm nii pour bu ma ko mu man ma jox dara mën a defar li mën a def lii mën a def lii nitu yàlla bi ne tekk ba yàgg bàyyi wax jooju noonu jékki-jékki ne ko waaw tafsir bi nga def xanaa yéeme na de mu ne ko waaw mu ko mais tafsir nga ci Fatiha mu ne ko waaw Fatiha kay tafsir naak moom laa jëkk a tafsir mu ne ko bi nga yëgsee ba ci iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in noo ko firee mu ne ko naxussuka bil ibadati wa iyyaka nasta'in ay laa nasta'inu illa iyyaak dama ne ko yow ya dama ne dama ci sa tafsir bi yàlla yow rek la ñuy jagleel suñu jaamu Euh, yow itam rek lañuy sàkkoo ndimbal duñ ko sàkkoo ci keneen mu ne nooy def kon voyage bii nii a ah, bokkul bi góor gi dafa xam ah, mu ne ko yow yaa yàlla rek ngay sàkkoo ndimbal te yow yaa ngi jóge dëkk dëkk pour dem ci buur sàngam dégg nga ne day dimbali kuy defar téere est que du amal gam li nga wax yow ak li ngay def dafa rus hmm. mu jooy jooy yu métti nag. Mm-hmm. bi mu jugee ne ko yow yàllaa la yabal. Mm-hmm. yow. Mm-hmm. yàlla moo la yabal pour nga wax ak man. te loolu di jaalul xay bi dañ koy def. góor gi ci la uh, ëlbatiwaat géléemam dellu di jooy nag. ndax moom amal gam bu rëy boobu mu def te yëgu. maanaam maanaam nit warul sàkku ndimbal ci kenn ku dul yàlla. moom mu bind loolu ba pare amat euh, waye di gu toll di ko yóbbul def pour mu delloo ko te nit lépp lu mu def ci jaamu yàlla kan la ci war a xaar ndimbalam wala ak payam ndeysaan loolu la def jooy dem mais xoolal li yàllay def lépp loo gedd te yàlla tax yàlla dina la fay lu ëpp loolu ndekete rumeur yi dem na rumeur yi dem na ba buur ba dégg ko ne am ne ko am na benn mufassir bu ñu daan wax baaw yi dafa def tafsir doon la ko waaj a indil daje ku ko déconseillé ndax iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ba mu jooy ci jooy yu métti ba dellu na dëkkam ci jéggalu yàlla ci loolu mu def buur bi naka la ko dégg jooy jooy yu métti moom it ñu xoolal dimension yu kawe yooyu rek nee nañu bu fekkee baydaaw yi dix millions la soxla woon buur bi jël na cent millions def ko ci malet ña nañ ko ko yóbbul moom biir néegam la toog ñu indil ko lu ëpp lu mu waroon a am yàlla lépp loo gedd ngir moom mm. mu jox la lu ëpp mm. loolu waa xoolal léegi ñi bëgg a def diine liggéeyukaay mm. boroom alal ju xam nañ foo dëkk ak quartier ba nga dëkk numéro téléphone yi nga am yëpp xam nañ ko appartement boo am xam nañ ko te ne ñoom ñu ngi maqaamoo iyaaka naabudu wa iyaaka nastain kooku itam amal gaam la hmm? <laughs> Euh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mooy yàlla yow la ñuy dimbalikoo mu des nag ndax boo bëggee tabax sa étage waaw eh, eh, di nga bëgg a soxla architecte ab maçon ne ko dimbali ma nga tabaxal ma nangam est-ce que ndimbal googu boo na ak di bokk na ak bële déedéet. Hmm. loolu ci xikma la boo bëggee maanaam boo amee sa oto mu pan di nga soxla benn mécanicien. Hmm. boo soxlaa installation sa kër di nga soxla électricien. Hmm. et tant d'autres. yooyu ñooñu ngay dem loolu al istiaana bil xikma la léeg-léeg sax nga nga sant njaay jënd benn saaku ceeb dem ba koy yanu mu xaw a barasiku nga ne eh jàppale ma ci waay dimbali ma ci waay ma dugal ko fii loolu noonu mënul dellu ci al eh, istiaana al ibadiya eh, al ibada eh, al ibada maanaam yooyu dellul ci jàpp maanaam sàkku ndimbal pour jaamoo ko yàlla hmm. donte nag am na ci nitu yàlla yi ñu dem ba loolu sax ñu ëppale ka seen bopp ngir bañ mu niroo dimbali ko ci kulul yàlla. Hmm. moo tax saxaaba yi am na ci koo xam ne yonent ci daf ko bokk ci li mu ko digaloon. Hmm. mooy laa tas al ahadan an shay sa giiru dund bu laaj kenn dara ndax dañuy bañ mu dugg ci cadre wa iyyaka nasta'in boobu hmm. saxaabi boobu wax nañ ne ba bi muy faatu même bu masaana yéeg ci kaw géléemam wala fasam yar bi muy dóoree fas wi daanu moom day mujje arrêté fas bi cëppeelu wàcc foral ko boppam mais jox ma lii ak euh, jottali ma ndox moom ko daaw ko nangu suñu maam Murtada Mbàkke noonu la meloon daawul accepté nit defal ko dara waaye itam accepté ñu lay defal lépp kooku mën na jur tam beneen musiba maanaam koo xam ne booy sol say dàll dañ la koy indil tegal la booy sol say yére dañ la koy indil booy sangu dañ lay tàngalal ndox lal bi nga tëddoon ci boppam fanaan ci dañ la koy lalalaat. Mm. sajaada gi ngay jullee kooku bu yàggee kooku ci beew la la jëme mm. yàlla boo dem ba ci yàlla nag mu laaj la explication yi ndax képp ku la rendre service boo ko ñaanalul yowmal qiyaamati dañ koy fay ci sa yiw mu ngi mel ni compte boo xam ne bés bu jot ñu génn ci euh, euh, maanaam euh, maanaam ñu génn ci ciru téeméeri téeméeri yeneen compte bu yàggee compte boobu vidéo de moo tax ñi xam dëgg du nangu ñu leen di defal lépp hmm. mais koo xam ne loo sol ah maa ngi sant ne kii de sol yëpp moo ma ko indil verre yi ma sol sax ah, moom de moo ma ko indil dàll yii moo ma ko indil fii ma toog nii chaise bi moo ma ko jox mais bu yàggee yow finalement loo def hmm. moo tax yonent bi bëggul woon julit di mel noonu ndax di bañ iyyaka nasta'inu bi dabu la léegi nag bi nga waxee lii yàlla nee na haada bayni wa bayna abdi lii moo nekkoon diggante jàmm bi ak boroomam yàlla ne nag comme nag léegi wax nga ne may may alhamdulilahi rabbil alamin may rahmaani rahim may maliki yawmi diin nga itam adoration ne maaka moom reconnaître nga ne itam ndimbal maaka moom yàlla ne je suis je suis satisfait maanaam je content hmm. léegi nag euh, sal léegi laajal li nga bëggoon a laaj ndax ci ngay xam ne bala ngaa ñaan da ngay tagg nit ki nit ki gis nga da ngay gis géwél bi bu ñëwee ci géeram donte amul daf bala koo wax dara dafay tagg di ko tagg sa maamay lii sa maamay lii ba waa ji commencé firéeku léeg sax du ko wax soxla waaye waa ji naturellement mooy xam ne kàddu gu rëy nii nag kuñ ko wax war nga tooyal mbuus nag ko defee nga soog a génn yàlla itam mi am nga ju toll nii ku ko tagge war wax dëgg yàlla war nga xaar retour hmm. moo tax yàlla ne kon nag wali abdi ma saal sama jàmm bi nag lu ma ñaan léegi je suis satisfait je suis content na ko ñaan hmm. mais bari na koo xam ne nii mu ngi ñaan te xamul lan mooy priorité hmm. ndax abtab yi dañuy wax ne ki nga xam ne soixante douze heures moo ko dese ci àdduna pour mu euh, dund moom bu xamoon li mu war ñaan lan la war ñaan yàlla may ko gudd fan comme yàlla mën na may gudd fan ku ko neex mais borom soixante douze heures yooyu des ci adduna rek buy ñaan yàlla pour yàlla may ko deux milliards cinq cent fan la koy jële fan la koy jëlee yàlla may ma xaalis yow rek laa bëgg te yow dossier yi war a yóbbu sa sa ruug yi pare na boo xamoon di nga xam ne ñaan milliards yooyu du sa priorité kon dangay ñaan yàlla gudd fan loolu moo tax comme yàlla wax na la ne ñaanal directement danaa ko nangu. moom it bu la dimbaliwul ci sa priorité nga xam li nga war a ñaan. xam nga man nga ñaan bu doon ñun gudd fan la ñuy ñaan. jullit yi nga xam ne nii ñoom la fatiha bi wàccoon ci ñoom anañu. nekk nekkatuñ fi ñooñu bu ñu doon ñaan gudd fan anañu léegi. Hmm? jóge nañ fi ndekete ñaan gudd fan du priorité. Hmm. ñaan alal du priorité. ndax bu fekkoon ñoom dañ naan yàlla may ñu xaalis may ñu kii anamu léegi hmm? mais da ñaan lu dul dañ te gis nga loolu la ñuy jariñoo ñoom ba tey yàlla ne comme xamoo li nga war a ñaan xaaral ma profité euh, jàngal la li nga war a ñaan pour ma may la ku gën a baax yàlla amul hmm. koo xam ne moo lay sax li nga ko war a ñaan ba pare mooy nangu ñaan gi ba pare moo la koy mayal lan ngay ñaan mu ne ihdina siraatal mustaqim yàlla yàlla nag ma jubal ci yoon bu coowaaral bi bu jub bi bi nga xam ne moo ñëw ci yow waxul itam ni yàlla gindi ma ci yoon bi ndax ñun waa jàkka ji lay wax ñun waa aj gi wax ñun waa jamaatul muslimina ñooy ñaan ihdina nga orienté ñu ila siraatal mustaqim ci yoon bu jubbi siraata laa wax ne riwaaya tey ñoo ci ñëw am na siraata bi sod am na siraata bi siin am na sirata siraatal mustaqim yàlla yàlla nag ma jubal ci yoon bu jub bi yàlla yàlla yàlla nag ma jubal ci yoon wu jub bi ban yoon moo jub xam nga yoon wi jub yàlla moo ko xam yàlla ne siraata alladina an'amta alayhim yoonu ñi nga xam ne ñoom nga teral wax dëgg yàlla ñi yàlla recevoir biir àjjanay illiyin jileen teral fii mag adi sidqin inda malikin muqtadir loo gàtt gàtt xel war ngaa xam ne ñooñu moom jub nañu ñooñu ñan la mhm. mu ne élite yi la mooy min annabiyina wa siddiqina wa shuhada wa saalihin ñeenti catégorie yi kuy ñaan yàlla ñoom nga war a ñaan fekki leen mhm. mooy cent vingt quatre mille yonent yi amul benn yonent bu jubul aktaab yi amul benn xutb bu jubul suhadaa yi ak saalixiina yi amul ku ci jubul yàlla yàlla nga ma yóbbu foofu wa xasuna ulaika rafiqan dalika alfadlu min allah wa kafa billahi alima yàlla yàlla nga ma gindi ci yoonu ñi nga xam ne teral nga ma teral nga leen siraat alladina anamta alayhim loolu tax aliyu ibn abi talib ne arifu alxaqa wa arifu ahlahu wala taarifu rijal bi wala taarifu rijal bilxaqi nee na kuy xam dëgg da ngay dem jàngi ji lan mooy yoonu dëgg ba pare boo xamee ne yoonu dëgg mu ngi nii nga soog a mën a ràññee ñafane fa loolu la yàlla def dafa ne ihdina siraatal mustaqim yàlla yàlla nga ma jubal d'abord ci yoon wu jub bi ba pare mu bëgg la ko définir mu ne mooy yoonu gaañu baax yi waaye boo ne yàlla may ma mu jaar ci yoonu gaayu baax yi te xamagoo yow yoon wi ban la mën nga gis ay nit foog teg leen ku baax nekk te baaxuñu dañoo ñu baax ñi ñun loolu moo ñu xaw manqué maanaam nit dafa jaadu woon mu jàng diine jàng alquran jàng sunna ba xam dëgg muy soog a xam nag ñi nekk ci dëgg googu mais yow doo def loolu da ngay jékki-jékki rek topp nit hmm. même bu nekkul ci dëgg doo mën a reculer waat parce que jotoo woon xam luy dëgg hmm. moo nga gis kuy topp nit muy jëfe ay mooy yàlla te doo man bàyyi parce que yow xamoo araamu mooy yàlla googu dangaa noo da koy nëbboo rek foofu ngay mën a yam parce que jotoo woon xam dëgg gi mm-hmm. Ali ibn Abi Talib ne nag la gënoon mooy nga xam dëgg gi ba pare di soog a xam ña ne xam nga dëkk bu ne boo demee ba ca ba toog ca dëkk bu mm-hmm. doo mën a xam ña ne ca dëkk bu hmm? waaye dajeeg nit rek mu ne la man pari laa dëkk teew xamagoo pari xamagoo kii kooku bu lay teg dil daf lay bett moo tax yàlla ne ihdina siraatal mustaqim yàlla dafa leeral dëgg gi ba pare yàlla nag ñu jubal ci yoon wu jubbi léegi nag soog a wax siraatal lazina mooy yoonu ñi nga xam ne am an'amta alayhim yaa leen xéewale ba nekk ci yoon woowu kon ñi ngay topp na fekk ñoom ñu topp ci mo ci siraatul mustaqim ba pare euh, bien boo gis nag parallèlement mal dana fa am mm-hmm. foo gisee lu baax mm. di nga gis lu bon à côté moo tax mu ne siraat alladina an'amta alayhim ñu ne mais yoon woo dafa am ñu ko revendiqué woon est-ce que ñun religion islam moo njëkk ñëw fii maanaam diine Muhammad am na ñu fi nekkoon te ñooñu euh, liñ naan labina fepa fait pas le moine hmm? ñooñu nga xam ne ñu ngi ak te ñu ngi dëkk ci seeni barab Euh, koo ci gis da ngay mujj bëgg a jooy ndax ni apparence bi mu lay wan ci ne dafa ragal yàlla. Hmm. te scandale yi ngay dégg ne ñoom ñu ngi koy def ci guddi yi da ngay nga ne waa mais man fan laa jëm. Hmm. mu ne siraat alladina anamta mu ne gayril maxdubi alayhim hmm. waxuma ñi nga xam ne danga leen mere. ñi mu mere ulamaaw tafsir yi mooy moo nee mooy al yi al diine boo xam ne ni yonent yàlla Moussa la ko yàlla joxoon euh, am ñu ko topp te gëmuñu ko carrément mais dañ ko topp nii rek ci turu topp ñooñu li ñu def ci scandale ci àdduna bi jusqu'à nos jours kenn xamul nu mu toll. Hmm. kon ñooñu nga xam ne ñoo la fi jiitu yoon bu amee ñu la fi jiitu def ay scandale ba yàlla mere leen est-ce que yow mi mi xàmmee war nga jaar foofu. Hmm? moo tax benn waay dafa ànd ak benn xaritam ci guddi. di dox di dox boo dugg ci jamonoy nawet benn poto poto naka lay dox nekke foofu pax la ba yàgg ne paf dugg ci benn poto poto gestu xaritam nekk eh bul jaar fii bul jaar fii parce que fii dafa am ndox mooy ko jaaratu ko yow man mi nga àndal ma janoog yow nga dugg foofu dinaa xoolewaat ba dugg foofu bul jaar fi kay jarul ma wax <laughs> que expérience bi ma am ci daanu foofu du bëgg a soo sama bopp mukk mhm. waa nit boo xamee aw yoon woo bëgg jaar am na ñu la fa jiitu mhm. ñu la fa jiitu am ay choc ci yoon wi mhm. yow est-ce que jaaduwul nga jële ci bind ba lool bañ la dal moo tax yàlla di tere jullit yi pour ñu jéem a topp ñooñu parce que gis nga li liñ mujjee récolté mooy gadaba gadiballahu alayhim yàlla daf mere yàlla nag waxu la loolu rek yem ci mais li tax mu mere yahud yëpp daanaka awaa awaa'ilu suuratu baqara loolu lay leeral. parce que booy tàmbalee suuratu baqara rek ba romba maam Adama ba ba boppu xisib bi yàlla ci yahud yi la koy wax. xayril maxdubi alayhim kon li tax mu mere leen maanaam du da leen bëgg a mere rek mais dañ ko mérité parce que li mu leen santoon yëpp defuñ ci dara. kon yow jullit bi nga xam ne yaay seen rakk ñëw seen gannaaw est ce que waroo jël ci ñoom expérience. moo tax ñaanal yàlla bi nga xëyee fajar julli suba li ngay njëkk yàlla mooy ya ñaan mooy yàlla la yàlla musal ci yoonu ñooñu nga am ne dañoo topp seen banneexu bakkan ba yàlla jëppi leen ñoom lu tax ñu jëppi leen ñoom mer xam nga mer dafa ëpp ñoom dañ leen mere mooy nit ki nga xam ne dafa def dara te tayu ko nit ki def dara te tayu ko jombul kooku kenn du ko wax dara ndax dañ naan boo nekk waaw lu tax lii nga ne noo tayuma ko mais ki jàng ba ne ar di def lu ka neex nga ne ko waaw lii nag mu ne maa tey kooku na koy meree est-ce que duna bokk kële ñoom yahut yi yàlla da leen mere parce que lépp lu ñu def ñoo ko tey parce que xam nañ ko ak tawraat la yàlla wàcc ci ñoom inna anzalna tawraat maa wàcc tawraat détail yëpp yàlla jàngale ko fa xam nga yahut yi ba tey nii am nañ ñoo ciy toogal mën nañ laa wax kay la kay la àdduna tukki ci seen njàng mu bari donte wa maa yudrika la alla saa takunu euh, qariba yàlla nee na binduma ku ma xamal saa mais ñoom ci seeni calcul dinañ dem ba indi ci yoo xam ne ni bés bu jot nañ ko bindee noonu lay amee waaw ku mel noonu ci xam-xam bu defee lu ko neex kooku moo ko tey moo tax ñoom yàlla da leen mere xatiba allahu kon yow jullit bi nga xam ne yaay seen kade góorgóorlul ba fa ñu jaaroon bul fa jaar ñeneen ñi ci des nag mooy ñoom dañoo comprendre dara ñoom ñoom jànguñu te teeyuñu mooy wala daale ni ñu réer ñi ñoom réer ñi mooy ñoom jotuñu jàng <clears throat> mais teeyuñu lu ñu leen wax rek ñu jàpp ne dëgg la di dem ak ñëw ñooñu la ñu taxe chrétiens yi mm-hmm. ndax ñoom ñi ci jàng bariwul mm-hmm. bokk ñoom ñële ñële jàng nañ mais ñii ñi ci jàng bariwul parce que quelques-uns ñii jiite jàngu yi rek ñoom ñooy jàng ñi ci des ñëpp ci masque yi lañ nekk nii dem ak ñëw lu ñu leen wax ñu fi tasu ñooñu daaleen la de ndax mooy bés bu décision bi kilifa gi bés bu jëlee décision bi dafay concerné ñëpp parce que jànguñu. Mm-hmm. mooy liñ liñ naan wax kilifa gi nee na nangam wala sëriñ bi nee na nangam ñëpp defandoo. yàlla nee na nag personnalité bi ma def ci nit warul mel noonu ba lu kenn wax rek ñëpp àndandoo buubu déedéet dañoo war jàngali kooku jàng ba am raison yu kooku jàng looloo tax gis nga daali na bari foofu léeg-léeg dara xew ci ñoom nga bëgg a toog pour ñu argumentel la ko du ñu xam lu ñuy wax ñoom hmm. jànguñu kenn daal mooy jàng ñi ci des ñëpp topp hmm. naan amin amin jeex na hmm. loolu nag àdduna tollootul foofu léegi xayril maxdubi alayhim wala daalin yow yaa yaa ñaan yàlla ci fatiha pour yàlla musal la ci ñoom léegi nag mu indi analise bu pertinente mooy yow mi doon musul ci ñoom léegi est-ce yaa ngi topp programme bi ngay musloo parce que bu fekkee emploi boo am yow pour gagner ta vie almaxdub alayhim moo la ko jox yow ci ñoom nga ko yaakaare emplois boo am ci daal lii na ñoo ñoo la ko jox yow sa musu gi ah, fan la jëm koo gis mu ngi naan yu sama tubaab bi kay moom kay sama tubaab bi ñaanal ma rek yàlla gën ma jubaleek moom mm. te yow tubaab bi ñoom moom ngay musu nii mm. ngir moytu ci moytu ko yow. Hmm. yow li nga wax ak li ngay def du benn. moo tax bari na lu ñuy jàng ci alquran bu ñu delloo ñun suñu pratique journalière amal gam lay doon. Hmm. moo tax boo nee xayril maxdubi alayhim programme la wala daalin programme la mais fexeel nga jëfe ko mais du revendication rek. Hmm. bu ñu nee bi nga ne ah ñooñu kay bu ñu nee juif bi nga ne ah ñooñu kay mais yow sa journée yëpp. loolu ngay œuvrer kooku nag problème la te loolu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam moo ko waxoon ne la tattabi'unna sanana man kaana qablakum xarfan bi xarfin xatta law daxalu joxra dabbin la daxaltumuuhu qaalu alyahuudu wannasaara qaala faman idan yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na malheureusement sama xeet dinañ toppa yoonu ñi leen fi jiitu woon tànk par tànk sibran bi sibri pas par pas pas à pas di ngeen leen topp ba ñoom bu ñu duggoon ci paxu jaan sax ngeen dugg fo ndax ni ngeen leen di toppee typiquement ñu ne ko ah ñooñu ñuy émité ñan lañu xanaa yahud yi ak chrétiens yi mu ne budul budul ñooñ ñan lañ ñooñ ñooñu fi jiitu de mais loolu mu dénoncé woon est-ce que fan lañ toll ñun hmm. ñun suñu por vestimentaire lan la ñuy sol seen seen sol nan la ñuy waxee seeni wax lan la ñuy làkk seeni lakk fan la ñu dëkk ci seeni dëkk fan la ñuy liggéeyee ci seeni entreprise fan la ñu am denc suñu xaalis ci seeni banque fan lañu fan lañu seen lépp ñun ci lañ nekk moo tax ñu ñuy diri di ñu jëme fu ne ndeysaan waaye kon bu boobaa comme amoo loolu parce que dañ ko prédiroon kon war na am mënoo ci dara. Mm. maanaam système bi moom loolu la. système bancaire bi système social bi système politique bi yëpp loolu la dogalu yàlla la mais kon amal courage boobu. Mm. moo tax ñu ngi ñaan yàlla subxanahu wa taala mu teel ñu boppam nag. Mm. comme loolu prédiroon nañ ko mënul ñàkk. yàlla yàlla may ñu hmm. cohabitation bi ñu ànd ak ñoom boog boog mu bañ a yóbbu suñu diine ba mu jeex hmm. bi max di fadlihi wa juudihi kii mooy suuratul fatiha hmm. kon ci introduction bi buñ nee la fatiha rek moom moo tënk kaamil bi neexul a gëm gis nga ko parce que bàyyiwul dara ci kaamil bi gis nga ab daalina boobu boo demee suuratu ali imran presque saar bi ñoom la bëgg leeral lu tax ñu doon daalin ba indi mubaaxala bi suurtu Ali Imran buñ fa àggee dana leer nga gis ne yàlla yaatal na fa kon suurtu Bakara bi parti bi yëpp maxduba alayhim la doon leeral Ali Imran daal na te ñaari ñaari saar yooyu ñooy zahra way ni ñooy ñaari saar yi ëpp influence ci alquran yi gën a leer ci alquran lii moo doon lii nga liñ doon jéem rek surtout fatiha ñi ñaan yàlla subhaanahu wa taala yàlla yàlla defal ñu ko fatiha ci lépp li kulli xayrin bi maxdi fadlihi wa juudihi hada huwa tawfiq min indillah assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu